asalaamaaleykum waa Louga asalaamaaleykum waa àdduna c'est B-Boy Ziza responsable Louga School Dance membre Samurai Killers. yeah salaamaaleykum ñu ngi bëggee ñëpp di képp ku ñuy seetaan si Bakel 24 TV euh, moi c'est Papouz euh, membre Samurai Killers ak membre Louga School Dance quoi. Euh, tout d'abord dañuy saluer initiative bu rafet bi waa Bakel 24 parce que lii ni geste bu nice la c'est une geste à saluer quoi. xam nga léegi euh, bala may wax dara may waxtu tout d'abord ci euh, euh, école de danse bi voilà day benn initiative boo xamante ne si yàgg nañ ko mébét quoi Papouze yàgg na ma ci wax ñu toog di ci waxtaan ak Babs et autres comme ça léegi jëluñu woon décision pour teg ko mais affaire bañ demee ba kay teg affaire dañuy ñëw dafa ñëw facilement quoi dañoo toog un bon jour ñu ne pourquoi pas parce que Covid bi moom moo ko kale woon ñu dem ba gars yi bàyyiwaat activités yi.

léegi euh, man man tey maa ngi doon commencé joxe cours maa ngi doon commencé def euh, hip hop laa doon joxe tey quoi mais du coup hip hop euh, step rek laa doon joxe koi tey moom ay base la doon joxe Louga School Dance boo gisee nag ñu teg ko. Euh, dañoo gis ni Louga affaire dafa commencé woon di low quoi Louga affaire dafa commencé woon di low danse bi kenn déggatu ko woon après maag maag sama collègue bii nii Aziz ñu yàgg ñu yàgg a toog après ñu ne euh, du war na ñoo teg dara loo xam ne war na apporter Louga danse bi quoi si lañ toogee ñu conserve maag moom ñu waxtaan si après ba trouver terrain d'entente si lañ tegee lii quoi mu nekk initiative bu naas ba ñëpp di ko wax léegi ñun moom euh, pare nañ pour euh, def ay collabo affaire bi génn quoi bëgguñu mu yem fii kese quoi ñoo bëgg Louga Cool Dance muy dem fu gars di ko gis moo tax lii nii boo ñëwee proposé ñu ko dañ si kontaan quoi pour ñun dañoo bëgg a jàllale suñu Louga Cool Dance bu wane ne waa Louga fii danse am na fi quoi ñu dundal te ñu ngi koy teewal quoi ñun moom loolu moo ñor quoi. yeah comme ni ma ko waxee woon rek presque Papouze a tout résumé quoi comprendre euh, Louga Cool Dance dañ loo xamante si dañ ko yàggoon a bëgg a teg. parce que ñun on n'avait pas eu euh, la chance quoi parce que gars yi fi nekkoon xam nga suñu grand yi fi nekkoon def nañ fi lu nee quoi mais Louga School Dance comme ça nii nii li fi jot am cette fois si bu musu fee am quoi musuta am Louga donc euh, ñuy woo gars yi ñi nga xamante ni si tey ñoo fi nekk muy. Euh, magum aar yi fi nekk suñu yaay yi ak ak suñuy tonton yi suñuy grand frère yi ñu ñëw daal di jàpp si affaire yi quoi daal ci jàpp jàppale booy bu baax a baax parce que lii nii ay jeunes kese ñoo ko organiser ay jeunes kese ñoo fi nekk ñun ñëpp presque ay morom lañ booy boo gisee ñu leen di jàppale c'est parce que ku la jiitu si néeg bul lëndëm moom moo la mën a wax fi ngay toogee comprends nga du nag looloo tax ñun ñu ne il faut que ñu jàppale booy yi parce que buñ leen jàppalee jàppale suñu bopp parce que ñun ñëpp ñoo bokk intérêt intérêt en commun muy danse comprendre nga te ñun danse jaral nañ lu né parce que voilà depuis bañ ku ñu xam ci lañ ñu xamé ci lañuy tédé xama voilà quoi mi ngi nonu donc ma ngi wo gaay muy autorité yeeg ñëpp ñu ñëw japp ci affaire bi Louga School Dance mi ngi fi pour yeen ñëpp la voilà quoi mi ngi nonu man euh, voilà euh, ki l'a doon joxé Denso l'a doon tay bo xolé euh, on n'avait pas eu beaucoup de temps motax tax joxé hip hop après vous mu joxee hip hop noonu de temps bi xat voilà moni pourquoi pas jéem def tuuti base sol. voilà ba benen yoon comme ça moi loolu Courir, yi moom ñi ngi du lundi au vendredi hein, non lay demee chaque jour la xam nga weekend yi rek la noppalu quoi ku bëgg inscrire Louga School Dance mon nañ ñëw au niveau du centre culturel demander contact Papouze et Ziza comme ça bu ñëwee wala Babs koo ci rapproché wu si ñoom rek après dina la dina la jox information yëpp détails yëpp quoi luga School Dance mi ngi noonu pour yéen la waa Louga nos portes sont grandement ouvertes pour tout le monde ñëw leen ñëw leen ñëw leen beng beng. Euh, man li ma si waxaat mën naa wax ne du bëri parce que boo xoolee Ziza tamit résumé waat na lépp quoi euh, du damay wax côté côté côté danse bi quoi. mën naa ne affaire bi dañ koy dañ koy gën a yaatal quoi duñ ko basé wu kese si si danse hip hop bi mën nañ ko yaatal def ay mbalax invité gars yoo xam ne parce que di coup sànq dañoo amoon benn benn si yoon bi ku ñu ku ñu ku ñu dajal mu nekk gannaaw boo xam ne cool na yàgg na si aar bi après après Père Babacar Sarr mu daañuy proposé proposé ni kon boog du coup dafa bëgg a joob ak ñun mën na joxe sax cours workshop boo xam ne mbalax lay doon affaire bi gën a yaatu ko parce que boo xoolee Louga boo waxee léegi mbalax lañ lay njëkk a dàkkantal moo tax ñu ne euh, école de danse bi dañoo bëgg affaire bu yaatu quoi duñ ko yemal si hip hop faa mu dem mbalax contemporain lu fépp lay laal quoi du coup ñun tamit instant bi pare nañ quoi pour def benn spectacle boo xam ne dañuy dañuy montrer Louga School Dance bi nii la demee quoi xam naa loolu bu fekkee Covid bi affaire bi tane na quoi dinañ ci dinañ ko gënal li quoi légui inscription yi mi ngi 2500 mille cinq ah, mensualité bi mi ngi nek 3000 quoi affaire dañ ko def juste pour jàppale jeune yi quoi ñun mom mën naa ne amuñu lenn luñ ci gagner quoi ñun aaru Louga moo ñor moo tax lu ñu jaral dañ ko ci def quoi moo tax ñun amuñu lenn lu ñuy lu ñuy ragal ñun mom comme ni nga gis ni ñun ñoo fi nekk quoi comprendre ah, comme que yalla ñun ñun la fi tek amono ñu fi nek la légui nekatuñ fi quoi ñun ñoo fi nek motax dañ ka wara a jëmmal dañ ka wara li li côté bu ne quoi motax tax dañuy rafetluwaat initiative bi te instant bi lii dañuy sawar si wax si

pour gars yi fi nga ko daan teg ñu tegaat ko fa quoi parce que boo daan wax Louga cercle de la jeunesse ngay wax quoi ay dem na fu ne mais pourquoi pas Louga ñu ne dans si po bi dem na fu ne quoi ñu ne site boobu lañ taxawee moo tax pare nañ pour jàppale ñëpp waaw di kontaan di waat yéen. yeah comme ni mu ko waxee waat rek xam nga euh, di woowaat gars yi surtout di inciter ci euh, école de danse bi di ci inciter waat quoi bu ñu bu leen neewee les inscriptions c'est à deux mille cinq cents francs mensualité di trois mille loolu ñun on n'y gagne rien. benn lenn lañ ciy gañee moom mooy euh, relever waat niveau bi jéem a yokkaat niveau danse Louga xam nga danseurs yi dañu constaté woon jamono yi weesu danseur nombre de danseurs yi fii nii à Louga dafa diminuer de trop donc ñu gis ni loolu noonu loolu noonu en tant que ay acteurs yi ñun ñu ñu nekk ci xam nga dañu loolu du ñu neex quoi duñu bu ñu gisee loolu noonu du ñu neex du ko ñu ne ñun pourquoi pas ñu jéem a teg école de danse bi ni jàppale booy yi nañ ñëw ñun ñëpp ibil nañ leen porte yi nañu ñëw grand yi danañ ñëw comme ni ko Papouz waxee ku ci mel ni père Babacar xam nga ak ñoom Galaay gars yooyu yëpp ñu nee ñoom dañuy ñëw te affaire bi lii commencement la presque bañ commencé ak léegi euh, trois semaines rek lay am trois semaines ou deux j'espère xam nga léegi donc affaire bi day gën a yaatu yemul fii kese yamul fii am na euh, danse traditionnelle comme danse hip hop comme que ñun nag danse hip hop lañ fi nekkal ay danseurs euh, hip hop mais tawul ñun concentré wuñ ci ben domaine bobu muy hip hop parce que des fois grand yi dañuy soxla ñuy dem si yeneen branche yi di ci kii donc loolu tax ñu ne école yi pourquoi pas après de fur et à mesure ñuy dem job bi di gën a yaatu après ñu intégré yeneen style yi ay li ci mel ne ay mbalax contemporaine yeneen affaires yeeg yooyu noonu quoi di woo gars yi en tout cas pour ñu jàpp si bu baax quoi parce que affaire jeune Louga la ñun ñun danse rek moom moo ñu intéressé quoi dañoo jug ñun suñuy propre moyen pour jàppale euh, booy yi donc ñoom ñi nga xamante ni si tey seen loxo jot na seen ginnaaw xam nga mën nañ ñu jàppale nañ ñëw ñu jàppale ñu quoi ñun ñu bokk ñun parce que ñoo bokk li ñuy défendre quoi wasalaam jaa ngeen jëf waay di jaajëfal euh, Bakel TV initiative bi rafet na trop di wax gars yi nañ dem abonné seen chaîne yi YouTube xam nga daal di partager affaire yi mu jàll quoi merci beaucoup jaa ngeen jëf. yéen man mot de la fin rek laay wax ku ku ñu bëgg a jot da ngay def 118. 157 102 61 après nga def 118 436 01 92 léegi numéro yooyu ngay contacter boo bëggee inscrire wala nga bëgg a bokk ci affaire bi quoi les gars comme ni ko sawaay vous dem leen ngeen abonné ngeen suivre Bakel 24 TV am na solo mi ngi def lu lu lu naaj ci ci affaire culture quoi léegi merci encore une fois yaa ma bang xam. bang beng beng beng beng